jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ñu ngi fii ci Tëngéej tiis boo xamante ne dal na ci monde bu làmb xale boo xamante ne làmb amoon nañ ci moom xale boo xamante ne avenir u làmb ndeke yàlla suñu borom moo yor dernière borom moo dogal nga xamante ne mooy Papa Yade numéro 2 génn àdduna gannaaw soog bi nga xamante ni woon def na ko ba yàlla suñu borom dawaloon ko mu nekk hôpital tëdd tëdd bu yàgg tey nag suñu borom mujjee na koo jël ba dellu si na ci suñu borom ñu ñaan rek yàlla na ko yàlla yërëm ta a tax a ko dàqal fii mu jóge waaye gis ngeen coow li mbokkam yaa ngi noonu njage yaa njage yaa ngi noonu ñu ngi ci fi nga xamante ni mooy kërum dëgg bis bii képp ko xamante ne day dund war na ko xalaat bis bii war naa waral ku ci nekk muy waxal sa moroom lépp loo xamante ne lu rafet bis bii war naa waral ku nekk di seedeel moroomu jullitam loo xamante ni mooy taalibeen mooy akub jullitam lamb sport la boo xamante ni dañ ciy def rek ku ci nekk di ci jël li nga xamante ni moom tiis ko boo xamante ne mais mbëri Tëngéej yëpp booloo xamante ne dañoo jugee fépp fu waay nekk nañ ngir dooleel ànd ak gunge ki nga xamante ne mooy Papa Yade numéro 2 ci këram gu dëgg bi mbokk yi gay gi ngeen mbooloo mi noonu foo sànni mbàtt mu tàkk ñu ngay sikkar ne maa ngay gis ki nga xamante ne mooy Gàmmu Gay gis naa ko fi ndeysaan gis naa ama neex gis naa ki nga xamante ne mooy limousine mama yaa ngi ne mbëru Tëngéej yëpp ñëw nañ ànd ak ki nga xamante ne moom lañ daan ànd bu ñu amee bànneex ñoom ñaara koy ànd bu ñu amee naqar ñoom ñaara koy ànd tey lii nag tiis la ndax du naqar yàlla suñu borom lépp lu mu def rek neex nañu waaye tiis la boo xamante ni dal na monde bu làmb ñu koy jaalante ci suñu biir di ko jaale képp ku bokk ci làmb moo xam nga ne ci réew mi moo xam na ne ci bitim réew gis nga oto bi fi mu toll nii mënuñu sax am fu ñu wàccee ki nga xamante ni mooy néew bi ñu ngay coowoo ñii ñu ngay jooy ñii ñu ngay daanu waaye nañu xam ne àdduna nii la àdduna diggante bi ngay juddoo doon liir bi ñu tudd la jox la tur nga waa faatu ñu tuddee la néew bi loolu rek la doomu aadama am góor gi iti jaamu ñu noonu ngay sànn booloo mi nga xamante ne ñoom la daan àndal ci làmb ñëpp ñu ngi noonu lii daal yàlla suñu borom dong moo ko moom yàlla suñu borom du jël mukk lu mu moom yàlla lépp lu mu jël alalam la ndeysaan doomu dàngoo ngi noonu moo nit ndeysaan ndeysaan kuwenso ngi noonu cëy làmb cëy àdduna petit Baye Fall ngi noonu ndeysaan ñoom ñëpp ay xaritam lañ woon fu mu amaan làmb ñoom ñëpp nga gis leen ci wetam waaye gis nga tey ba tiis dalee waa Tëngéej gépp jóg nañ wane ni Tëngéej benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ndeysaan làmba gi noonu waaye àddunaa ngi noonu lii mooy àdduna lii mooy àdduna ndeysaan ndeysaan bu bàyyi yéen a ko gisandoo mbokk yi ey yàlla ñu ko bëgg a waaye amuñu benn bunt buñ ko mën a wàccee mbarankaal baa ngi noonu di ñëw ndeysaan li ñu bëggoon mooy wàccee ko rek ndeysaan jébbal ko boromam nag ndeysaan waaye ku ci nekk mu ngi wane ni sama wóor la woon sama xarit la woon sama njëgañaale la woon balaa moo dem ci këru dëgg gi faw mu gunge ko ndeysaan sax mu Mouhamadou Fadal lii moo lay wan ne at boo ci nekkee nekkal ci lu ci làmb yàggul dëgg la waaye lii tàbbi ci at mbir def ak tamut yi dëgg la lii lu dëgg la yar ak teggin ak delluwaat lépp ci solo suñu loxo suñu borom Cheikh Mouhamadou Fadal ba ma gisee mbooloo mi sama yaram dafa daw ñii nga xamante ne ñoo àndoon doon bokk liggéey bi ñuy def muy làmb tey ñoom ñëpp ñoo ànd ak moom gunge ko ci gungeem bu mujj bi muy kër dëgg gi ñuy ñaanal Papa Yada xale la boo xamante ne làmb amoon nañ ci moom yaakaar xale la boo xamante ne boo dugg si woon di nga am yaakaar nga ni dina doon avenir ci làmb waaye ndek nit ki day décidé rek waaye yàlla moo yor dernière décision bi ñuy ñaan yàlla suñu borom yi nga xamante ni waaye bu may ne xel parce que li ko topp ci ay doomu aadama ñàkkul kenn ko xam ne bu ci ne allahu yàlla nangu ko ndeysaan dëgg la moo tax gémmiñ ko am barke suñu borom dong ko xam mbooloo mi ko gunge rafet nañ njort ni yàlla suñu borom dina ko xaaree ci àjjana yi firdaws yi yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana te yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam apa yadda rafet nañ ci moom njort ndax gis nga mbooloo mi nga xamante ni moom lay àndal Cheikh Mouhamadou Fadel kenn mënu koo may ngir mu wàcc oto bi ngir cofal gi ñu am ci moom ngir bëgg-bëgg gi am ci moom ngir yërëm gi nga xamante ni yërëm nañ ko waaye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax en tout cas lu mën a xew daal mooy Cheikh Mouhamadou Fadel xol tooy na xool tooy na lool lool lool xool tooy na loolu la jiir hmm. borom wasaare ci dëgg la dëgg la dëgg la Cheikh Modou baax yaa ngi noon lii ñuy yëkkati mooy baatu laa ilaha illallah bi nga xamante ni luy màgg moo ko gën a ndeysaan te loo siyaar bu wér waaw waaw di ko jàll sa bopp tamit si gin di gaale ci li ñu bokk waaw na ko yàlla yërëm taxaare kaa jëm ndeysaan jërëjëf ndeysaan baatu laa ilaha illallah nga xamante ni màgg moo ndeysaan maa lay siyaar bu baax a baax a baax Modou Anta maa ngi lay nuyu waa Jili Badane maa ngi lay siyaare waaw ah, gannaaw ba ma la nuyoo ah. bokk nga ci ñi nga xamante ne yëgoon ngeen tawat bi ah. ba nga lancé ci appel def ci benn vidéo wax ni mbokk yi nañ ko ju nañ ko ñaanal da ngaa xamoon tawat bi fu mu toll wala da ngaa yëgoon wala da ngaa jotoon na déggante gaamu ko. waaw Bagdad comme li ma lay wax rek. ki nga xam ne mooy Papa Yada numéro 2 ñu gën koo xam ci Assane Diop. day ndaanaan boo xam ne ndaanaanu làmb la. waaye ci gàttal li ma lay wax rek. samedi diggante samedi ak vendredi. ci la xew-xew bi am. waaye bi mu amee rek sama xel daa nekk ci moom. ma vocal Badou mbay bi nga xam ne waayam la di ko laaj. mu ne ma sawaade dafa def sok ci diggante sonadis bi ak juuti bi. ci deux roues bu mu yoroon benn oto bu taxaw mu fekk ko fa jël ko li lee moo lan choc bi ci biir choc bi nag am na ci ay blessures yu bari waaye bi ci gën a garaaw daal mooy jëbi jëbi daal lan gis ne moo ko sonal lool ba yàlla dogal mu joxe fa ñàkk bakkanam muy ndaanaan boo xamante bi nii wax dëgg yàlla ameelul kenn ak gàcce la fi bàyyi waaye nag dañ koy ñaanal yàlla rek wéetaay la fi bàyyi waaye bàyyi fi lu bon Papa Yada day ndaanaan day Baye Fall si combat am yëpp si victoire am yëpp saa bu bëree ba daan première kaddu gi muy wax rek cant yi jàpp nañ ko jàppal ko jour Baye Fall yi ñëw bëggee xam ne kooku Baye la te li si li sëñ Mountakha waxan rek Baye Fall bu dëggal moo ma gënal sama jëmm ji kon kii di Papa Yada rafetlu nañ ko bu baax a baax fa mu jëm ne yàlla dina ko xare àjjana te am nañ ci njott am nañ ci xalaat bu rafet boo gisee boulon mi bëree loon bu Kër ma saar mbooloo tey teew na fi boo gisee Papa Thiam numéro de mi bëree loon bu ikiri Papa Kane tey teew na fi mbëru làmb yëpp gis nga leen ay ñoom Sa ñoom Xeeru Ngor ñoom caatu yof caatu ngéwél gaa yëpp mbëru làmb yëpp gis nga leen fi mais nag dañ koy ñaanal rek parce que xale la ndaw la mais bisam bii yombul ci bisi gaa yi am ko quoi nit génn na àdduna di kilifa diine sax te amul bis bii quoi nit génn na àdduna di kun xam ci réew mi te amul bis bi jili daal ci gàttal Papa Yade yàlla na ko yàlla xare àjjana te yeexuñu Assane Diop. Hmm. Hmm, jërëjëf Modou Anta. arène bi TV la nekk. jël yoon yi daal ko mu def ko mu def ndeysaan bu ñu ci kër di dem àdduna de lii moo fi am diggante bi ngay gane ci àdduna ak ba nga cay génn moo tax def du lu rafet rek moo am solo jëf lu baax rek moo am solo ndax lii bis bii ku ci nekk war nga koo fàtte bis bii ku ci nekk war nga koo fàttaliku bis bii war naa tax képp kuy jullit képp kuy doomu aadama jarul xiiroo jarul ñaayoo jël wax sa moromu jullit dara muy wax ju ñaaw boo xamante ni bu bis bi amee buñ la waxee taxawal seede ko doo mën a taxaw seede kii di aji dem bi bis bi war naa tax kii nga xamante ni mooy xale bi ma ngay dem ndeysaan muy papa yadda numéro deux nga xamante ni diggante Tëngéej gépp tiis na xale yaa ngay jooy mag yaa ngay jooy yaakaar gi ñu amoon ci xale bi fam leen tolloon yaakaar gi ñu amoon ci moom xam na suñu borom may xolub muñ may leen keneen koo xamante ni danañ leen mën a toll fa raw leen tolloon yàlla suturaal leen njaboot gi fi bàyyi yàlla teg fi tànk yàlla jàppaleen suturaal leen suturaal mboolem jullit lii daal xam naa ni mooy àdduna ndeysaan ñu ngi noonu di ko yóbbu ci kërub dëgg gi ci yàlla ndeysaan mbooloo mi bari na lool ñu koy gunge ci kërub dëgg gi bari na lool ndeysaan foo sànni mbàtt mu tag ndeysaan soxna yaa ngi noonu kër yàlla Faal yaa yaay faal yi tamit ñoo ngi noonu ci wetu ànd gunge ki nga xamante ni mooy Papa Yade numéro 2 kër dëgg gi. saan loolu daal mbokk yi ni ngeen ko gisee noonu gis nga mbooloo mi ñoo ngi koy gunge saan ñii mën nañoo dugg waaye ñii mënuñoo dugg ñee ña ngay wër armeel ñee ñu ngi koy xaar ci bunt bi adduna daal mu ngi noonu kenn xamul luy xew suba. kook yow tiis bi nga xamante ne dal na ci képp kuy monde la mën nga ñu jox benn témoignage rek ci ki nga xamante ne moo fi jógoon muy Papa Yade numéro 2. waaw gisoon nañu ko baax la nit ko bàyyi faale woon nit ko jullitale woon d'abord moom ñu ngi ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana ndax mooy l'essentiel bi. ndax mm. guddi ñu moom. wax dëgg yàlla baax du bu baax. bu baax bu weesu woon loolu dañ koy wax. mais ni ko baax la te yéen ku woyof la yal na ko yàlla yërëm te xaare ko ci làmb moo leen boole rek muy métier boo xamante ku ci nekk de a bokk ndey yéen a bokk baay. tey lii na làmb fondement la rek. Hmm. dañuy jël di yëkkati rek coulage dina xaj na ci. te lépp rek ñu ñooy mayante xaalis ñooy demale ñooy dikkalante. Hmm. kon lépp day rafet rek. Hmm. bis la boo xamante ni jar nañu xoolaat suñu bopp suudewaat lépp ñu dala ko ci loxo yàlla suñu borom jërëjëf jàmm